en finale ñu ngi fii nag ci beneen hôtel Marriott fi nga xam ne délégation Sénégal fii la ñu nekk une grande partie des autorités du Sénégal une grande partie euh, des personnalités de ce pays ñoom nag fii la ñu daje tey ngir mën a dem gunge suñu gaynde yi ci kanam euh, fële ci stade international du Caire alors ñu ngi toog fii gis réception bi euh, ñoo xamante ni bu ñuy wax Sénégal foog ñu tudd leen ñoo xam ne ay personnalités yu am solo lañ muy monsieur Babacar Ngom bien sûr président la Sedima monsieur Youssou euh, ñoom nag au-delà de leur caractère au-delà de leur aspect sportif et tout ils adorent le football Babacar ñu ngi lay nuyu. Ah, maa ngi leen di fay Ndeye Fatou. waa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu baax a baax a baax. pression bi on est à quelques heures du match est-ce que yaa ngi ci tuuti. waaw dëgg la pression bi moom rëy na mais d'abord ñu dañuy sant yàlla. parce que xale yi wane nañu jom wane nañu fulla ak fayda xeex nañu ba egg si final. Euh, dëgg la nag final moom boo fi xasee yegg li gënoon jafe def nga ko li ci des nag yàlla moo ko moom muy chance muy euh, lu suñu boroom dogal ñoo ngi ñaan lu ñu mën pour que coupe dem Sénégal Sénégal mosu ko jël bis tey bis bu rëy la ci ñun bis la boo xam ne dajale na Sénégalais yëpp te Sénégal loolu la soxla dañu soxla dajaloo dañu soxla ànd dañu soxla nekk benn bokk ndey bokk baay yàlla defal ñu liggéeyante suñu réew voilà. ba pare yéen ñëpp ngeen jël consommation waxtaan xam naa defal seen bopp aussi et puis am ngeen yaakaar je pense que ça aussi c'est important. am nañ yaakaar bu baax a baax a baax ñoo ngi toog dëgg la nag ñoo ngi stressé parce que bëgg nañu yóbbu coupe bi Sénégal bëgg nañu coupe bi bu ñuy dem ànd ak moom yóbbu ko ànd ak xale yi dem Sénégal ñu teeru ñu ñu wane ne dëgg-dëgg jom am na fierte bi ñu bëgg Sénégalais yi gën ko am ci seen bopp ñu am ko parce que loolu lu am am solo la en tout cas tey moom bis bu màgg ci Sénégal bis la bu màgg ci Afrique. alors Youssou Ndour moom ku ko xam xam ne que euh, bëgg na football loolu il est fervent supporter du Barcelone mais Sénégal doo ko tëkkaleek dara je pense euh, mille 2002 demoon nga ca finale ba 2019 nga ñëwaat lan ngay ressentir comme émotion. nag su ma yeboo ne boo ne soxla nañu coupe bi waaw xale yi def nañ li leen war def comme ni ko Pape waxee mais soxla nañu coupe bi pour plusieurs raisons parce que ce n'est plus onze contre onze c'est autre chose et ma xool aussi benn point boo xamee ni que maa ngi koy xool quoi man Égypte m'a toujours porté chance l'Égypte m'a toujours porté chance maa ngi xool yooyu yëpp tellement dañu bëgg affaire bi. lan mooy les signes d'espoir daje nañu ak Algérie en match de poule mu dóor ñu 1 Sénégal yëpp kaas gars yi fexe ba ñëwaat final tey nan la ñu war a fexe ba dóor Algérie. waaw man dama ni dama jox confiance totale à Aliou lu ma koy ñaan mooy tey te loolu lay def tout le temps mooy mu fexe ba génne la meilleur de chaque joueur boo xam ne dafa koy classé tey le meilleur c'est-à-dire que nit ki dafay joxe lépp et je pense que si suñu parvenir loolu je pense que Algérie mënuñu jaaxal parce que tamit. premier match bi match de poule la mais ñëpp xam am nañu lecture pour seen affaire yi nga xam ne moom moo amoon ci match donc je pense que on a nous Sénégalais ñun gaaw nañu mën a rectifier ah je pense que ne Aliou est dans ça et euh, voilà dinañu rectifier ça sera pas en tout cas le même match que bi ñu joué ak ñoom voilà et euh, voilà nous on est prêts nous avons besoin de cette coupe c'est pour cela. quand waxee peut-être un accident de l'île quand tu as Roger Mendy Jules François Aj aujourd'hui tu as Sadio Mané et en termes de palmarès on ça pose problème waa dëgg la ça pose problème Dione yàlla mën nañu jàpp Sénégal Sénégal soxla na ko en tout cas man li ma bëgg a dolli dama jàpp ne dafa am ñetti coupe d'Afrique dafa am coupe d'Afrique des nations am na coupe d'Afrique des joueurs mais am na aussi Coupe d'Afrique des entraîneurs mais Coupe d'Afrique des entraîneurs bi nag jàpp naa ne Aliou yóbbu na ko jël na ko gagné na ko moom ba pare ko yóbboo Dakar vraiment leneen lay doon. ça c'est un message fort alors euh, que ni Égypte da koy porter bonheur. penser que pour conclure 26 les ñëwaat fi 2006 fait une demi-finale. jël coupe bi bi contre la Tunisie. mais dama beaucoup beaucoup de dans dans le match même beaucoup beaucoup de applaudissements et à partir du moment euh, ba euh, l'histoire du penalty était vraiment très, mais je pense que ni boo gëmee dara tu vas la vie était là donc c'était quand même c'était un match très difficile boo xam ne dafa amoon ay ay hauts et des bas je l'ai vécu avec ma famille euh, comme tout le monde nous avons vraiment senti que c'était un grand moment xale yi def nañu ba indi ñu final bon maintenant nag l'appétit vient en mangeant ñun ñëpp dañu bëgg coupe bi mais xale yi ni leen war def nañ ko

marqué l'histoire de ce pays et qui adorait le football ñun ñëpp yéen ñëpp ñi nga xam ne que yéen xam football di ko toppatoo xam ngeen ni Tanor musul raté équipe nationale ci match bu am importance mu ngi taxaw kon nag euh, ñi ngi koy ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana ndax vraiment def na li nga xam ne moom moo ko waroon ci dundam fii ci Sénégal te référence la boo xam ne président ma Macky aussi euh, wax na ko euh, tuddee na ko màggal na ko respecté na ko te loolu solo donc bu coupe bi ñëwee nag day gën a mat day gën a mat parce que ku bëggoon football la ku bëggoon Sénégal la ku bëggoon équipe nationale la. alors président si on remporte la coupe quel sera le prochain vous rentrez directement au Sénégal. oui euh, c'est pas encore décidé mais je pense que si on remporte la coupe euh, on va choisir la meilleure heure pour décoller d'ici avec les joueurs avec l'équipe et puis euh, atterrir à Dakar ou à euh, l'aéroport AIBD. Euh, et puis vraiment, euh, attendons un accueil populaire parce que ces jeunes-là méritent ça, ouais. le Sénégal mérite et ce sera une grande fierté pour toute la nation. Et pour Grand Youssou Waaw fi mu ne nii je crois que ni boy bu ñu jëlee pot bi dañ leen di jébal nag réew ma nag ak ak waa réew ma Sénégal rek dañ leen di jégg c'est-à-dire nañu xam ne nit boobu ñoo ko yi ñoo koy def kooku boobu ñun effacé wu nañu mm-hmm. délégation bi nag xam nga ñi ko ki ko jiite délégation officielle bi mm-hmm. moom mooy euh, le ministre euh, directeur de cabinet MDC bu président de la République euh, Augustin moom moo ko jiite ñu ngi ci ànd ak vraiment délégation bu am solo mm-hmm. ñëw ku taxawu kii président ci boppam détail par détail presse bi ñu ngi suivre vraiment affaire bi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp sëriñ si ñaan nañu euh, état bi def na li ko war xale yi def nañ li leen war ñëw nañu taxaw vraiment li ñu waroon def nañ ko li ci des nag mbiru yàlla la comme ni ko Pape waxee parce que nous sommes des croyants mais on est intéressé par par par par ce qui se passe là. <laughs> Bah, on vous souhaite un bon match. Voilà, merci de nous avoir accordé ces moments. Donc euh, xam naa dañuy